le monde euh, des arts moy manam culture bu ne culture nag dafa yaatu sonn nañu fi mu ne jaaxle nañu tit nañu ndax euh, événementiel ak spectacle ak culture dañ koy préparer ay wér wér weer booy préparer wér wér dem ba mu jékki-jékki rek ñu ne la mënatul am xam ne dis na artistes yi ngeen ni gis ni ku ci nekk amna 50 personnes derrière bu nu faté musiciens yi xëy na dinañuy wax turu chanteur bi waaye musiciens yi ak ñi nga xam ñoo nekk ci ginnaaw les technicien ñu jar a jàppale kon nag monsieur le ministre dama bëggoon a wax ne que euh, ah jàqare mi ngi doon commencé am parce que man mi dëgg-dëgg yàlla message yi ma jot jege ci samay rakk artiste ñu wax ma ndax gis suñu proximité bu ma am ak yow ak suma liggéey bu ma am ak président de la république ñu yaakaar ne ah, plaidoyer bi du dox du du du doy kon nak euh, ñom ñëpp wax nañ ma tay nak buñu gisé li xam nañ ne que suñu kilifa jogna pour ñu waxtaan ak ñun pour dalal suñu xel ba paré ñu yaakar ni rapidement alors monsieur le ministre le plus rapidement possible il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose et le secteur bi le secteur gënu ko impacté nit bala muy dem hôtel kenn gisagoo kenn ku jógee dëkk ne man damay ñëw ci dëkk bi pour fanaan ci tel hôtel dedet da ngay ñëwut ci mbagas si spectacle setan si football wala dara ca guddi nga tëdd ci hôtel hôtelier yi vraiment am nañu syndicat ay organisation yu taxaw yo xam ni que lépp ci jot ci ñom ñu taxaw ñun nak jot na ñun tamit artiste yi ñu nekk ci ginaaw ki di wax di jëf di taxaw di yëgle lolu dal la doon bëgg wax di ko rafetlu artiste yi daal seen xel dina dal tey ci visite bi. Ablaye Diop suñu ministre de tutelle la te man en tout cas c'est mes souvenirs. bu dee peut-être une fois moom daal en tout cas c'est pratiquement l'un des premiers à part Moustapha Ka à l'époque qui s'est déplacé ñëw ba sama kër ñëw seet si ma au nom du président de la République peut-être à son nom propre aussi parce que tey moo moo nekk si si bopp culture bi moom moo moo moo yore suñu mooy njëwriñu culture bi au niveau de.

ah parce que mbir mi ñëpp ñëpp la métti na si ñun lool lool sax parce que am na xam ne chaque guddi dañuy joué ah bu dul loolu sax sama mbokk restaurant yi ak de nuit yi guddi dañuy joué te ay yor suñu yor suñu njaboot ah dañu yor suñu njaboot war a dundal suñu njaboot tey yàlla xëy si bu ne affaire na këpp duñu ko teg ci duñu ko teg ci kaw kenn nag ah dañu ànd ak suñu ngor rek waaw ku nekk euh, état bu nekk yaa ngi jéem a góorgóorlu en tout cas pour indi euh, seen ndimbal

man day rafetlu naa ko te gëm naa ne ak mom inshallah rabbi kilifa rew mi wax mo ben geste me dina def ay geste yu bari jëmale ko ci le monde artistique parce que kenn bougéwul